di sant sunu boroom bu baax a baax a baax ci lim nu jagleel ñu ñëwaat at bi comme niñ ko yàgg defee ànd ak ay responsable yu nekk ci coalition bi comme Malick ak ay responsable yu nekk ci parti bi ñëw pour célébrer bis bi nga xam ni képp kuy jullit képp kuy murit bis boo taamu la bis boo sopp la bis bi nga xam ni bisu ñaan la di ñaan ci li borom bés bi digal digle yàlla dolli jàmm ci réew mi léegi rek bi ma toogee ak le xalif général des Mourides maa ngi koy fàttali daaw bi ñu fi ñëwee ci cadre Yewwi Askan Wi fekk jamono yooyu jamono yu tàng la politiquement parlant mu jël kàddu ñaanal senegal xamal ni jàmm rek mooy am Sénégal. te ñaan yooyu ku gis dernièrement li xew ci Sénégal tolloon jamono bi nga xam ni àdduna bi yëpp doon doon inquiété ci li fi am ku gis donc ni mu mujjee xam ni ñaan yooyu sunu borom nangu na ko kon ñu koy gërëm bu baax a baax a baax di sant encore une fois ñun fi fekk ñëpp di gërëm encore une fois suñu responsable yi nga xam ni ñoo ñu taxawu mais di gërëm it xalif bi ci accueil bi mu accueillir accueil exceptionnel et di ñaan ñu ko yeneen déwén en tant que mouride mais aussi en tant que musulman et prier pour que ce Magal encore une fois avec toutes les prières que nos compatriotes euh, auront à faire que la paix puisse euh, continuer à régner dans ce pays et tout à l'heure j'ai rappelé au Khalife l'année dernière quand on était là dans le cadre de Yewwi Askan Wi des moments extrêmement chauds politiquement parlant et il avait pris la parole pour prier pour la paix et nous avons tous vu ce qui s'est passé dernièrement et qui nous a permis de connaître des élections apaisées et d'avoir un nouveau régime et je lui disais que tous les Sénégalais tous les citoyens du monde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 هماني هلا ماهل ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي ذبر هماني ألا ماهل ما الأبس والسفر